dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf député di Mbayru Sow mi doon jël jëlloon nit ñi ay jaasi ngir xeexal Macky Sall ñetteelu mandat jaasi ma ngay bëgg a dal ci kawam ubbi l'observateur waa APR di alliance pour la république parti Macky Sall bi ñoo def démb ab communiqué di communiqué ba porte parole ba di Seydou Gueye moo ko bind ñu cee xam le ne kàdduy député Alioune di Mbayru Sow yooyee rafetlu wuñu ko te it ànduñu ci la seen kay nañu waa APR faruñu député Alioune di Mbayru ñu yem ni yégle wuñu benn daan mu dib sanction boo ne nee nañu dana ca topp si du côté nañu di ñi mu wax ji ne mu bokkal langue politique politique di waa Benno Bokk Yaakaar ñoom it def nañu démb conférence de presse boo xam ne dañ ci doon ñaawlu li député bi wax anki dina nañu xeex bi mu doon woote moom honorable député Aline Dumbiru Sow dana ca wéet ne ñu yi mu bokkal APR wan nañu ko ginnaaw ne dañoo gis ne ni mu doxalee dëppowul ak ni seen parti di doxee coalition jot na patriote pour l'alternative ñoom li ñu gis moo di wax ji waru faayam dañu ko war yóbbu ci yoon toppee Aliou Sow la tribune mi ngi ñuy xamale jaasem yi su moytuwul ci kawam lay mujj ne muy waa APR di waa Benno Bokk Yaakaar wàcc nañu ko maître Moussa Diop di sàkk ci procureur de la république muy toog di bañ na jóg auto sisiru gàddu yëfi lijjanti ko ndax lu ñuy seet ci wax ju ñaaw wax ju bon rek mi ngi ci wax ji waa ji ko taxoon di wax ak àllu di président Macky Sall journal témoigné mi ngi ñuy xibaar ci xëtamu njëkk ne Macky Sall nee na ko fa na wax ci waxi député du mbiru sow yi Moustapha Diakhaté nee na ak njubadi ak moom mi ko wax rek la engagé libération nañu moo taxit engagé na ciw yoon dugg ci guuta goo xam ne bu dul jàmbaar tigi ba muy mbër waada génn ci du yomb sursoi nañu ginnaaw bi koy naataangoom APRM yi wane ginnaaw bàyyi ko ci mbali gi moom rek conseil pour l'observatoire des règles éthiques ak déontologie ci média di waa koret ñoom fas nañu yéene dugg ci yëf yi yëf yeneen yu journal yi xëy dugg ba ci bopp bopp ak baat moo di gàmmuk Tiwaawan gi ñu fommu ren Vox Populi nañu dogal bi démb la wat bàyyee ko ci xalifa général des Tidianes di Serigne Babacar Sy Mansour wopp si ci àdduna bi juux ci réew mi mu di coronavirus bi moom lay bañ mu lawee ca Tiwaawan moo waral moom xalifa bi mu sukkandiku ci njàngalem yonent bi ba fommu téeméer ak fukk ak juróom-ñeenteelu gàmmuk Tiwaawan gi Serigne Babacar Sy Mansour ne taalibe bu nekk na gàmmoo këram Les léegi taxawaay nañu mu journal l'observateur xëy di ñu wax fomm gi ñu fomm gàmmuk Tiwaawan gi lan la mën a jur ne yàqu-yàqu ci wàllu koom benn moo di bari na ci dëkk ba ñoo xam ne waajoon nañu ba jekk def seeni i dépense jënd seen i yëf di seen tuy gante duñu leen gis commerçant it bari na ci ñoo xam ne dañoo investiroon seen alal jëndi marchandise ngir bëggoon ko jaaye ji ci gàmmu gi li leen nar a jaaxal mooy fu ñu jëm ak seen marchandise vox populi nañu li xalifa général des Tidianes santaane ci gàmmu gi mu di ku nekk gàmmoo këram sëriñ Moussa Fassi awul yoonu jëfe ko moustache diine yi nee nañu dañuy gàmm ca champ de course fa la ñu woote gàmm suur suwa nañu benn gawoon ca Tiwaawan dakk na bi nee na nañu fomm gàmmu gi Serigne Moustapha xotti fatwa ga woote gàmmu ca champ de course yéenekaay bi nañu dugguleet nag ñuy gis baa ñuy dégg Serigne Moustapha Sy am taxawaay buy safaanoo ak li kilifa Tiwaawoon di digle ne bu yàggu rek bi ñu tëjloo jàkka yeeg jumaa yi ca Tiwaawoon ndax coronavirus bi moo fi taxawoon ne su ma gisee ñenn ñi ñuy fowee tarixa bi damay am lu moom itte wal faj nañu tiijaani réew mi bokke gis-gis ci organisation gàmmu yu ci gàmmug ren gi tiwaawoon moom ma ba léegi ci confinement ba mu nekkoon musaashi diine yeeg waa Medina Baye ak waa njégéen-njégéen yi ñoom ne dañoo fas yéene gàmm boole ceekit fu ca mel ne Medina Baye wax nañu ne daañu def seen kémtalay kàttan ngir respecter mesure barrières yi ba coronavirus bi du falawee coronavirus boobee surna las mi ngi ñuy fàttali ne moo tax max bi Sénégal waroon a démb ak Mauritanie max ba amul record bi ñoom it dañoo amee coronavirus stade yi ne kay nañu max bu démb boobu foo ko ndax coronavirus bi ba loolee du law ba téq max bi Sénégal war a ak Guinée Bissau ci